mais est-ce que est-ce bon voilà. non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas refuser. Mm-hmm. vous ne pouvez pas refuser de réfléchir sur un postulat. man li ma jaaxal mooy le fait que nga ne c'est dangereux. non man je ne suis pas d'accord avec la colonisation de l'espace scolaire est dangereux. je ne suis pas d'accord avec Pierre parce qu'aujourd'hui on doit valoriser nos jeunes dañu war a suñuy jeunes dañu leen war a dooleel may leen fit. mais yow ñu commencé di jël beneen choix. mais ma ndax doomam bi mais ma rek. ñu commencé damay non mën na ko bañ a jiite mais mën na ko responsabiliser ma rek mais ma. parce que gis nañ ko am 12 dem dem juma di nodd ah. bien sûr gis ko am 18 ans di jiite juma. bien sûr loolu am na. ku mën a jiite juma war a a fal fal président aujourd'hui dañ toll gis ko am 10 ans di choisir imam non ku am 18 ans nga wax dama lay laaj ndax gis nga ku am 12 ans. non ko ci ñiy fal imam ci koñ bi. waxuñu waxuñu waxuñu 12 ans 12 ans 13 ans. Euh, même ma eggali gis nañ fi ku am 18 ans di jiite juma gis nañ fi am ku am 18 ans di noddu aujourd'hui dañ toll si jamono joo xamante ne si dañu war a valoriser suñuy jeunesse mais Pierre yow xoolal si te ONG yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal mais ay jeunes étrangers ñooy ñëw fii. de quel âge de 18 ay xale yu ndaw ngay gis si ONG de 18 américains français chinois yi japonais ay xale yi ndaw nañuy envoyé si dëkk Afrique ñuy ñëw di jàng di kii mais au fait noonu nañu war a encadrer tey suñuy jeunesse mais pas ku am 18 ans d' ailleurs âge euh, ngay wax nii c' est classifié mondialement dañu ne ko am plus de 35 ans nombre des Nations Unies tu n' es plus un jeune ku am 18 ans am ba 35 ans tu es considéré comme un jeune su nombre Nations Unies. au-delà de non 30... Nations Unies c'est 24 xam nga man mii tey jii nii. Ibrahima tapé ko Google. ah en état en master. en étant en master euh, la tranche euh, de la jeunesse non, est comprise entre 15 et 24 ans. moi je pense qu'on va pas être là aussi. li ma la jox benn benn. xam ah, kii bu simple. déjà si film yi ngay gis si documentaire yi ngay gis chaque jour nañu naan limite d'âge plus de 18 ans. loolu may wane ni rek nit ku am 18 ans wax dëgg yàlla tu es war nga mën a jël say motuwaay say responsabilités bopp. mais dañ koy xool si film yi si documentaire bu amee affaire gars. vous avez vous avez une une une une réaction. tey jii par rapport.